alayhim wala doliina wa sakki lubbi waftahan rabbi liya fathan laa yuraa li misliya saddid lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraay asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yëpp jiite ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général Mouride di ci teg sëriñ Mouhamadou Moustapha jëwriñu sëriñ Bara Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi ak njabootu sëriñ Bara gi yëpp yàgg fi lool te wér barke sëriñ Bara tey nag ñi ngi fii ci Mbacké Kajoor di benn fan ci eh, mois de décembre di fukki fan ak juróom-ñaar ci rakati gàmmu jumaadal uwaa ñu nekk nag ci waajtaayu màggalu Mbàkke Kajoor gi ndax màggalu Mbàkke Kajoor moom yoonu murit eh, ñëpp xam nañ ko kon nag tey ci waajtaay wi la nekk lañ nekk waaye màggal gi war a nekk le 12 décembre incha allah war a nekk ñaar fan ak juróom-ñett ci jumaa de loi ñu nekk fii nag eh, bëgg euh, wax jottilante ay kàddu di soññ mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ci lan moo xam lan mooy waral màggal gi ni mu def ba sosu ak ni mu def ba itam ba agsi fii ndax fii ci mbakk Kajoor sëriñ Baara mbakke sëriñ Tuubaa moo ko fi andi fekk jamono booba mi ngi woon sànn bi mu jógee gànnaar ba nekk ci yéen Jolof ci la ko yebal war a dem jaareem ci la yebal sëriñ Baara mu ñëw fii ci Mbàkke Kajoor muy 1912 bi mu ko fi indee nag 1912 fii la sëriñ Baara nekk ba ni mu wàcc liggéey mu ngi wàcc liggéey fii ci kër gi ñu jël ko yóbbu Tuubaa kon loolu di diir bu yàgg mu nekkoon fii itam nag liggéey ak jaamu yàlla ak defar mbindeef yi mbindeef yi fu fu nekk doomu aadama daana fi jóge di fekk sëriñ Bara muy faj sa ajo ndax mooy ki nga xamante ne nii faj aajo rek la fi nekke woon ak jël tawati mbindeef yi ak euh, aajo mbindeef yi e, di ko yanu lépp loo xamante ne nii war na ci ñoom rek mu def ko loolu lafi fi sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké nekke woon lii nga xamante ne nii nag mooy màggal gi màggal gi bi fi Serigne Bara jógee 1936 37 la ko Serigne Modou Bara njëkk amal fële ca Taysir lañ ko daa defee. def na ko fa Serigne Modou def na ko Taysir ba 1952 mu wàcc liggéey ca Korewa ndax ñu ngi ko daa def itam benn fanu tabaski bi nga xamante ne nii ci la Serigne Bara wàccoon liggéey ci benn fanu tabaski bi Serigne Modou Bara di ko def. ba 1952 mu wàcc liggéey ca Korewal na wàcc liggéey nag nga xam ne maanaam kori diggi tabaski ñëw nga xam ne bi ñu wàccee liggéey boobu màggal gi ñaari weer ak fan ci des. mu di ko fa def di ko fa def ba eh, bi mu ni mu wàcc liggéey sëriñ Abdoul Aziz ñëw daal di koy 1952 defuñu ko ndax dafa jegeek wàccu liggéeyu sëriñ Modou Bara 1953 sëriñ Abdoul Aziz dafa demoon Màkka. deuxième tey mu nekkoon benn fan tabaski benn fan tabaski day fekk ci période màkka bi. léegi mu ne mu wax sëñ Abdou Karim mi nga xamante ni jamono yi moom ak ci njaboot gi mu ne ko na ngeen ko màggal ci Taysiir nga jiite ko ci lañ ko màggal 1953. bi mu ñibbisee nag 1954 bi mu ñëwee ci la ko njëkk a màggal fii ci Mbàkke Kajoor 1954 ci lañ mëgam njëkk a màggal màggal gi fii ci Mbàkke Kajoor. Euh, booba lay soog booba la jógee mooy at moom 53 dem màkk jógee ñëw 54 ñu def ko fi fii lañ ko ci lañ ko njëkk a màggale ma mu nekkoon ci benn fan tabaski gi ci lañ ko daa def. bi ngay def ci benn fan tabaski gi ba euh, sëñ Sidi ñëw sëñ Sidi màggal na ko ci benn fan tabaski moom itam juróom-ñetti at. ndax Sèye Abdou si mi ngi fi jógee 1990 sëñ Sidi Muxtaar jël di ko màggal. ba 1998 moom itam mu dem Màkka bi mu demee Màkka at mooma euh, benn fa tabaski màggaluñ ko ci waaye bi mu ñibbisee euh, dem ci sëñ Saliou sëñ Saliou jox ko ndigal ne nañ koy màggal bisu gane yi mu nekk 28 jumaa dal lumara ci 1998 ci nañ ko njëkk a màggal ci euh, date bi ñu koy màggal moom itam. booba ba léegi ci euh, jumaadal luulaa boobu lañ koy lañ koy màggal 28 bi muy ci 1998 ba tey jii ñu nekk. kon loolu moo nekk cosaanul màggal gi nim jaar itam fa mu ak fa jaar yëpp itam noonu noonu la fa deme kon nag ñu di ci woo ñëpp rek mbokki taalibe yëpp ak mbokki julli yëpp. ndax euh, kenn ku nekk xam na ne sëñ Baara moom jabool la woon ju nangoon a wóof ak njabootam ndax itam waxuma la ñi nga xamante ne nii dañ ko yaakaaroon jëblu ci moom rek waaye moom mbindee fi seen borom yi yëpp yëpp yëpp la daa aar mbindee fi borom yëpp la fi nekkaloon. kon nag kooku bisam lu ci waaye def rek na nga xamante ne nii da ngay jéem a fay bor waaye mënoo ko fay kon nag nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax. def ci loo man ak loo mënut ndax koo xamante ne boo ko defalee loo man mu defal loo mënut boo ko defalee loo mënut mu defal loo jomb kooku mbiram kenn waru ko saggane te nañ ci war a taxaw nañ ci bu baax a baax a baax a baax a baax kon nag ñi ngi gën a soññ mbokki julli yëpp di gën a soññ mbokki taalibe yëpp ñu am ca taxawaay bu rafet bañ ci daa am. ndax bis bi nga xamante ni ci la ñuy bale rek wax dëgg yàlla wane na ko dëkk baa ngi fees dell ak i nit eh, wax dëgg yàlla loolu rek moom dafa doy waaye nag nañ gën a góorgóorlu kon te gën a soññaat suñu bopp gën a jàjjuwaat te xam ne ay taalibe rek lañu doon te mënuñoo nekk lu du lu duti taalibe amuñu itam lu ëpp sëriñ baara mënuñu ko am itam kon nag nañ gën a fonkaat lañ am gën koo jàppaat